ñoo ko gisandoo ñu ngi nii ci la marraine de la nuit kii nag mooy Xadijatu Negri bokk na ci marraine yi ñu ñëw nag boroom enveloppe bu duuf bi ndax yàgg nga koo def yàgg nga ko def borom Mauritania sama xarit la nag sama xarit la nit ku baax from day one yàlla na la yàlla defal jàmm ñu ngi nii Fatou nangul enveloppe bi tubaab preuve la bëgg on t'a donné l'enveloppe leer na ñëpp a ngi gis damaa xaw a weex donc kenn joxuma ko yow lañ ko jox <laughs> macha allah boo ñëwee Mauritanie da ngay seet si borom dëkk yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi dama fee ñëw nag waaye ba mu joxee enveloppe ñu baax ñi daf maa jox enveloppe teral ma Khadija Negri mu baax bi yàlla na yàlla defal jàmm loolu démb sama nitu démb la nee naa leen bu fekkee ni nii lañ ko nar a jàppee damay fas yéene rek toog dëkk ci réew mi waaye nag macha allah maa si so really appreciate thank you allah thank you donc kon këpp se